parce que déjà au sein euh, pas du 24 mais au sein de de Yewwi Askan Wi wala de l'opposition rek de manière am na ñu commencé wane seen intérêt ci ci dialogue boobu noonu. waaw xam nga président Sall woote na euh, dialogue ci discours 3. avril. Mhm. le vingt euh, le vingt trois defe naa bi muy defaat euh, émission ak seen naataango El Hadj Assane mhm. waxaat na bamtuwaat na ne woote na dialogue. Mhm. donc ci diggante ñaar fukki fan ak ñaar woote na ci ñaar yoon dialogue kon mën nañu njott ne bëgg na dialogue te wax na sax ne xëy na. ku mel ni Khalifa Ababacar Sall ak ku mel ne Karim ñoom ñoom euh, yaakaar naa tëjuwuñu ngir mu am waxtaan mhm. mais euh, de ci démocratie jàpp naa ne kenn waru ci bañ waxtaan parce que démocratie dañ ciy bañ extrémisme extrémisme mooy ñu teengal wala ñu catal maanaam mu tàng jër mbaa mu sedd guy mu saf sàpp mbaa mu lewet doom mhm. démocratie dafay diggu doomu moo tax bu fekkee woote nañ dialogue parce que am na yoo xam ne foog ñu waxtaanee ko comme le parrainage foog ñu mm-hmm. waxtaanee ko euh, li nga xamante ne ñoom ñi nga xam ne dañ leen génne euh, ci ci ci jeu bi nga xam ne war nañu mën a samp seen ndënd mm-hmm. ñoo ñu foog ñu waxtaan nan la ñuy fexe ba ñu ba ñu dellu si bokkul est-ce que loolu narul indi problème parce que ni nga ko waxee dañuy génn ci jeu bi bëgg a bokkaat loolu rek moo leen ñor parce que ñi si génn noonu amuñu problème parrainage muy Karim muy Khalifa ko ci mel ne Ousmane Sonko wala waa F24 nee nañu Macky warul bokk c'est la condition ñi tële woon parrainage ñoom seen problème mooy parrainage bi maanaam euh, intérêt yi bokkul en fait waaw intérêt yi bokkul naam mais aussi am na loo xamante ne euh, intérêt ku jéggi la intérêt ñëpp la maanaam li nga xam ne euh, mooy sart yi tëgg pom loolu intéret ñëpp la par exemple nan lañu ñu fexe boo euh, saytu li nga xam ne euh, mooy euh, jongante bi nan la ñu fexe ba lii di parrainage bi lan lañ koy remplacer wala nan lañ koy dindee mhm. naam nguur gi amoon na lu ëpp ñaari at pour def ko mais defu ko mais ba tey war nañ ci mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko sekk ba xool lan lañ ci mën a def ñi ci génnoon itamit war nañ leen mën a dugal mais aussi kii di Ousmane Sonko ak euh, jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu gàll ci ndoddam ci wàllu yoon te politique laxasu ci loolu itamit war nañ ko mën a waxtaane fexe moom it ba mu bokk ci jongante bi parce que jongante boo xamante ne am na leader boo xam ne ñëpp nangul nañ ko ne am na mbooloo war na mën a bokk parce que su fekkee dañ ko génne day am ñu bëri ñoo xam ne dañu am lu leen métti mm-hmm. parce que dañu am seen leader am seen projet gëm ko bëgg aussi bokk ci jongante bi loolu je pense que dafay yàq démocratie dafay yee fitna euh, ci réew gis nañ li xewoon Côte d'Ivoire jafe-jafe yi am yépp c'est parce que dañu bëggoon a génne ay candidat boo fexee ba du ñu samp seen dënd ñu ne leen yow euh, nii nga tudd wala ne leen nga tudd et cetera donc loolu moo andi euh, booy xool la crise ivoirienne mm. war nañu moytu kon lépp loo xam ne dafay jëm euh, ci ne ay candidat yoo xam ne dañu am mbooloo ci biir euh, démocratie ndax Ousmane Sonko euh, lu ñu mun di wax wane na ay preuve am wane na ko ci élection présidentielle yi moo jël troisième wane na ko ci élection locale yi janvier deux mille vingt deux mm-hmm. wane waat ko ci élection législative yi ba ñëw pratiquement euh, ñu timboo lu mosul am ci Sénégal mm-hmm. ci diggante ñi ngànk nguur gi ak ñi féete ci kujje gi donc ku mel noonu boo ko génnee ci jeu bi da ngay fausser bi parce que kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu war a samp kuréel yooyu dañu war a am crédibilité dañu war a am légitimité maanaam ñu ndangul leen ba noppi euh, weg leen mhm. loolu su fekkente ne bëgg nañ ko ñëpp ñi nga xam ne am nañu mbooloo bu takku waruñu fexe nu ngi leen di galgale génne leen euh, ci jongante Macky Sall aussi il se définit comme un homme de dialogue depuis qu'il est arrivé au pouvoir li muy woote dialogue bëri na amoon na sax journée boo xam ne dialogue national lañ ko lañ ko déjee Ousmane Sonko mi ngi koy wax sànq nee na euh, qu'est devenu euh, cette journée que sont devenues les rencontres yi ñu def dans le passé moom jàppul ne euh, dialogue gi dina am njeexital maanaam li ma bëgg wax mooy tey jii nii par rapport ak sa constat li ñu fi jot a dialogué dans le passé ndax ça a servi à quelque chose ba tax tey jii nii nit ñi mën a am yaakaar pour mën a toogaat dans cette table de discussion. waaw am na am na ci par exemple l' du maire au suffrage universel am na loo xam ne am na yu am na ay poñ. Mhm. c'est-à-dire lépp euh, lépp nanguwuñ ko ci dialogue bi xëy na lépp antuwul. Mhm. ci waxtaan bi mais am na quand même ay poñ yoo xam ne nangu nañ ne. Euh, ay avancé la maanaam euh, gis nañ ne kujje gi ak ñi ngànko nguur gi nangu nañ ci mm-hmm. la preuve bi ñu bàyyee bi li ñu bàyyi parrainage ci local yi par exemple mm-hmm. euh, opposition ak pouvoir yëpp dañ ci nangu donc mën nañu dem waxtaan parce que ci sama gis-gis démocratie kenn waru ci dàq waxtaan mm-hmm. ndax bu ñu dàqee waxtaan nit ñi dañu dal di jàmmarloo parce que dañu naan ce qu'ils ont appris à échanger des mots sont moins enclins à échanger des coups maanaam ñu mën koo euh, firi ne euh, réeroo amul ñàkk waxtaan a am ñi nga xam ne mën nañu toog waxtaan ku nekk wax li nga xam ne mooy sa mbébét teg ko euh, ci ay argument yu wóor teg ko ci ay firnde bu fekkee d'accord yow it nga joxe say argument joxe say firnde mën na am bu ñu dajalee kii li mu gis ni mu gisee kii neneen ki ni mu gisee intérêt kii ak intérêt kële xool ni réew mi tëdde ak li nga xamante ne mooy njëriñu askan wi mën na am luñ ci jëlee.